concerné ma Ndiaye mhm. parce que dafa am loo xam te ni label mu mënoo dugg si nit di liggéey ak moom dangay dugg ci léppam mhm. dafa am lu mu moom moom ñun ñu am lu ñu moom mhm. man li ma moom ci moom mooy professionnellement ak image am est-ce que nga tey bu demee nit di nga toll nit kese la di nga toll foo xamante ni sa digganteek mag comme kër yëpp ni mu amee tey mag rakk jékki-jékki wax ak magam loolu war na ko comme waali ni ko mën a fekkee biir suba teel mbéj ba mu bëgg dee loolu ñun duñ ci wax parce que santuma Seck Fall laa sant Mataa Jóob la sant kon donc tey ñoom ñoo bokk seen seekeen mhm. te ñun lu ñu sañoon mhm. seen famille boobu noonu jàmm rek a ciy am mhm. parce que dañuy bëgg adresse bi ñu yor mu stable mais pas moins stable te tey problème famille dafa sensible mun na ko désastabiliser euh, désastabiliser ba tey jii nii du mën a voilà du mën a liggéey normalement wala mu ko ne affaire am mhm. donc nañ gars yi sénégalais di arrêté mhm. di dugg lu seen yoon nekkul wala di wax wala di diaboliser dañuy jàpp benn nit xam nga mhm. benn wax bu ndaw ñu jël ko def ko lu ngande yaa may dégg ba leneen leen juste ba tey ñu jël ay audio yoo xam te ni quatre ans la def ci ginnaaw ñu indi ko di ko dékaat ay affaires yoo xam te ni ku ne bu tey boo boo amoon doom bu goo tey mu demee noonu mais loolu yëngaluñu Mandiaye loolu yàlla sax da ko see taal parce que sénégalais yu bëri am na ci loolu yërmande ci moom pare pour jàppale ko ñun moom bu dee ñun coow moom ñun ñooy coow ñun coow feret la ñeente ñun ak ku mu mënti doon ci showbiz suba teel égal coow mais nag coow bu positif suñu coow yëpp single la ak clip production def nit ñi di gis exporter musique bi indi fi Afrima 84 pays 105 chaînes télévisées mais ci vote yi gis nañ Sidi Diop dafa dafa dafa participer ci kii bi. waaw dañ ko nominé ñun amuñu link. ñoom ñoo Nigériens ñoo xoolal seen bopp ban ñan ñooy liggéey ah, fii. ban suba suba teel collaborateur wu. Euh, moom laa lay wax. Nigériens ñoo am Afrima. tey fu fu bënn booy daje. Tiwa Savage vraiment euh, Wizkid ñoo xam ni kenn ku si ne rëy nga si benn pays ñoom ñëpp ñu war a daje si benn plateau loolu du ndaw tey bu ñu demee ba ni ban dëkk lañ ko war a yóbbu tey awards yi ñu ne Sénégal ñëw Sénégal xool ni kan moo fi kan lañ mën a dénk affaire yi ni suba teel jox ñu ko ba pare wëlbatiku nominé son Sidi Diop Ngalam maa bind maa composé nomination bi en fait amoo leen ci benn ankay dañoo am ñu xamuñu leen Afrima dañoo ñëw dénk ñu comme tey benn projet buy ñëw seen city rek ne na ma bëgg liggéey ak yéen parce que gis naa seen liggéey dafa ne te am ngeen visibilité donc yéen gis nañ li ngeen di liggéey Sénégal te ku waxal dëgg tamit xam ni instant yi label bii liggéey label bi nekk ci kanam jiitu Sénégal suba teel la loolu xam nga ko keneen xam na ko donc biñ nominé Sidi ah, pratiquement suba teel moo fi nekk comme label en fait bon déggoo li ma la wax wala da ngaa mm. dama ne mm. fii label yi fi nekk bëri na mais label bii liggéey si ana yu mujj yii jiitu si kanam bu buñ koy jox label tey di jox comparant label bi nga xam te ne mu ëpp lu mu def ay tube yor ay artistes yi gën a xew ëpp lu mu tëgg événement ci stade yeeg si région yi ëpp lu mu dem tournée suba teel la loolu Youssou Ndour mënu ko dindi waxuma la ak Ouzin Keita waaw mais dañu gis keroog Bambaal mu jël Wally Seck première partie qu'est-ce que ça vous fait mais yow mais musique la di waaw mais mais musique bi dafa dafa nekk beneen tournure maanaam ay ay ay ay loo xamante ni partie bee la partie bi du ma laal kii du laal. tournure boobu noonu nag wax dëgg yàlla ngeen baal ma mais yéen a ko fa yóbbu yéen presse bi. Ah waaw parce que yéen doo leen jëlee dara positivement. Mm-hmm. non non tey Bambaale bu xëyoon gërëm Waly doon ko jëlee que ni magam la ñoo bokk sekk da ko war a gërëm da nga naan non la moo tax mu koy gërëm te pourtant bokkuñu la ba suba teel ak ñi nii ma njaay dem toog wax ak magam ñun yëguñu sax ba muy def émission yaa may dégg am yëg-yëgam wax ko personnellement ñu taxaw ne suba teel ñoo ko xamb mais loolu presse la parce que yéen la Sénégalais di mhm. a mën a defar affaire yi mu positif mais bëgg ay vues moo tax na Zbest bu waxoon tey fii benn affaire waale ngeen dagg ko mhm. doo leen leneen li de lu ngeen dagg mu intéressé leen ngeen siy def kon donc tournure bu mu am musique bi yéen da ngeen si participer mais artistes ñoom ñoo maladroit en fait parfois dañuy wax loo xamante ni waruñu ko wax en fait parfois est-ce que tamit comme li ma la wax waaw comme yéen tamit ni ngeen di foté di tiisereel nit loo xamante ne waxu ko pour rek mu dugg mu am benn vue ñaata yoon laa fi wax wax boo xamante ne da dañ ciy tiital bu nganda boo xamante ne la ma wax ak titre bi sax bokkul. waaw ak Wally Seck amuñu benn problème musique moo am concurrence musique moo fiir tey jii nii Omar Pène ak Youssou Ndour noonu la fi meloon loolu fàttewuñ ko Alioune Mbaye Nder ak Youssou Ndour noonu la fi meloon te pourtant jotewuñ dara mais musique mooy toll foo xam te ñaar ñi nekk ci tetu benn dëkk nekk fa ci musique concurrence xëccoo projet day am leen ak leneen mais si lu positif lañ koy teg The Best du musa taxaw di wax waal lu ñaaw Matar musul génn taxaw di wax waal lu ñaaw ñun suñu concurrence ci musique lañ ko teg donc tey fii dara lu ñaaw amu fi ñi ñoo bëgg def seen bopp loolu tey waale wax naa ko bu sentiroon def ak dara bu ñëwee damay defar bit bi composé benn test ni ko leen kon ñun boobu noonu suba waa loolu amagul instant bi nii comprendre nga mais bu amoon ñun dawuñu loolu ragaluñ ko keneen ku du Wally sax bu ñëwee ñu def ak projet. ok. Boucher ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. Boucher ñu fekk la fii sa bésu sa bés laay wax. Diouf di génnee ay lan titre seize titres mooy mooy moo fi ne ah. waaw Sénégal à Paris Youssou Ndour Pape Diouf moo topp c'est close dama gis album yu bëri di génn si oho album bi laa xam la seize tey jii album bii laa reconnaître moom laa xam moom laa gëm album bii mooy album bàyyi ma di ma wax ba boo eh. moom bëgg non moom bëggee di laaj bu ma laaj keneen man laaj ma ay album Pape Diouf. a wax ci album baa ngi nii neex yaa ngi koy déglu di fecc di toj dëkk bi yeete ñëpp bëgg waaw Fallou anamu anamu daal kenn du moom tëj na fi kenn du moom fa kii la way kii la way Fallou Lo kii mooy borom kokki jëlal caméra bi kii la way kii la way way wu wi mi ngi nii kii mooy Fallou Lo kii mooy yalwaanal ndongo yi kokki kilifa ba pare di yalwaan kilifa la di yalwaan pour jox ko ndongo yi nekk ndongo daara yi nekk kokki kii la Pape Diouf wooy wooy wu wi mi ngi nii barke sëñ Bamba. si wàllum sow bi la ñuy la ñuy desandi ba léegi. waaw ah. gis nañ fan yii sow bi yaboo ma la yëngu na bëri am na benn artiste boo xamante ne famille Seckène muy Mandiaye nekk Subatel Bambal nekk Subatel te Mandiaye génn def benn sortie boo xam mu ne magam gëstu ko ñëpp jàpp ne lu mu dem Subatel looloo tax mu wax ko loolu ñu mën a wax ci problème boobu noonu. sama yoon newul ci ko sax booy man sama Pape Diouf bii moom laa tal ay Mandiaye yoo wooyoo buuyoo yeeyoo sekkoo Pape Diouf mii laa lijjanti moom laa tal lu dugguma ci famille jàmbur samay ñëw ci famille jàmbur ku may bëgg ma bëgg la Pape Diouf mii ku may jàppale dama jàppale ci Pape Diouf mii ku may topp dama topp la ci Pape Diouf mii kuy déglu danga ma déglul Pape Diouf mii kii laa gëm. oh sama yoon newul ci looloo su ay mi suba teel Matar Diop suba teel laa fa am mooy sama lépp. lu mu dugg ma dugg ci lu mu génn ma génn ci. waaye affaire musique moom Pape Diouf mii laa ci am. mooy sama lépp waaw. ci wàllu sow la ñuy suba teel la ñuy desandi ba léegi lan moo waral artiste bu dem su génnee wax ci waali rek mu am polémique eh,